amma baad asalaamualeykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu mbokk yi fi teew ko tàmbalee ci ilimaan ak ñi nga xam ne ñépp ñooy ay nuwaam ak ah, mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi ak mbokk yi jóge ci yeneen dëkk teew si fi ñëpp maa ngi leen di nuyu li nu fi dajale mooy ndigalul suñu borom jim nu digal ne dee leen fàttalante wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waxam ne fa zakkir inna faati zikra kon loolu moo tax lu daje tey bunt bi ñu jëmee fàttali gi mooy al aqidatu saxiixa wa azaruha alal fardi wal mujtama pas-pas bu wér ak jeexit ji muy am ci nit ñi kenn ku nekk ak jeexit ji muy am ci mbooloo mi pas-pas bu wér bu ñu ko waxee mooy pas-pas dafa mënta ñàkk mooy li ki fas ci xolam gëm loola nga xam ne lu muy def loolaa ko koy tax a def lu muy bàyyi loolaa ko koy tax bàyyi bu ñu nee bu wér nag mooy bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala mi bind jaam ñi pas-pas ba mu leen digal ñu am loolaay ba wér loolu mooy pas-pasu tawxiid wéetal suñu borom tabaaraka wa wéetal ko ci jaamu gi koy jaamu. te loolu mooy li gën a màgg ci mboolem masala yi moo ca gën a yëkkatiku itam ndax loolu moo tax suñu borom tabaraka wa taala bind bindee fi wéetal googu ñu ko war a wéetal moo tax mu wàcce téere yi moo tax mu yabal yonent yi mbooleem yonent yi suñu borom tabaraka wa taala da yabal ngir ñu woote ci pas-pasu tawxid boobu di wéetal suñu borom tabaraka wa taala borom bi ne wa baasna fi kulli ummatin rasula an yabudu llaha wajtanibu taaxut nee na xeet bu nekk yabal naa ci ñoom ndaw ndaw la lu tax ñu yebal ko mooy mu xamal ñooñi ñu ko yebal ci ñoom ne dañoo leena digal ñu jaamu yàlla te wattandiku jaamu leneen lu dul moom borom bi wax ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi yabaloon naa lu la jiitu ay yonent yoo xam ne ku ma ca yabal dama koy wax yu nekkoon na xamal ñañ ko yabal ci ñoom ne man yàlla man rekk maay ci yeyoo ñu jaamu kon nag nañ ma jaam borom bi dal wax ne yunazzilu almalaikata birruuxi min amri ala man yashaau min ibadi an anziru annahu laa ilaha illa ana fattaquun nee na day wàcce malaayika yi ñu ànd ak jibril alayhi salaam di li nga xam ne ndigalam la di ko wàcce ci ku ko soob ci jaam yi kamu tànn ñu wàcce ko ci moom muy ab yonent kookee lañ ko jottiloo mooy moo xupp nit ñi xamal leen ne yàlla rekk mooy buur bi yooyu ñu jaam ko kon nag dañ ko ragal wéetal yàlla googu mooy baax bi yàlla binde nit ñi nit ñi suñu boroom daf lay a binde noo xam ne loolaay li ñu baaxoo leneen lu ñu def day wuuteeg la leen bind ni mu leen bind nga xam ne aw ñam lañ mën a lekk ndox kese mu sell moom lañ mën a naan noon la leen bind itam nag pas-pas bi ñu war a yor mooy pas-pasu tawxiid loolu mooy fitrat allah moo tax borom bi ne fa aqim wajhaka li diini xaniifa fitrat allah allati fatara annaasa alayha laa tabdila li xalqillah dalika diinu qayimu walakina aksara annaasi laa yalamuun su borom ne da ngeen jëmale seen lépp seen jëmm seen pas-pas ci diine diine ju sori bokkaale ju wéetal yàlla fan mu ne loolu mooy baax bi nga xam ne mooy baax bi suñu borom bind nit ñi te yàlla nag lenn lu nekk na mu ko bindee kenn mënu faa wuutal leneen muy amati njariñ lu bokkul ak la mu ko bindee mu ne lool nag muy diine ju jub muy diine ju wér mooy diine ju dëggu waaye nee na lu bari ci nit ñi nag xamuñu loolu ñu jële ci abi xurayra radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi mu ne ma min mawludin illa yuladu ala alfitra nee na amul kenn kuy juddu lu dul juddu na ci baaxu war a suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ko bàyyi woon rek kenn jeexitalul ci moom ci luñ koy xamal wala lu mu fekk ay nit nekk ca mu ne tundum rek boobaa tawxiid lay dund mu daal ne iqra'u fitratallahi allati fatara nnaasa alayha la tabdila loolu bu ngeen ko bëggee wóor li jàng leen li suñu borom ne loolu mooy baax bi mu bindee doomu aadama te kenn mënu koo soppi te loolu mooy diine ju wér ñu jële ci Iyaad ibnu Ammar radiyallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci li muy ñett li jële ci boromam suñ borom tabaraka wa taala ne wa inni xalaqtu ibadi xunafaa kullahum nee na sama jaam ñépp dama leen a bind ci tawxiid ci wéetal ma man yàlla wa innahum atathum shayatin fajtalathum an diinihim waaye nee na seytaane yi moo xam sayatinul ins wala wal jinn seytaane yi ñu teg jinne yëpp nee na leen di dikkal di leen man manee ba jël leen ci diine tawhid joj wa xaramat alayhim maa ahlaltu lahum ñu di leen araamalal lu ma leen daganal mooy yi ñu wax naan nangam dafa aay nangam dafa aay di aayal loo xam ne yàlla aayalu moo xam ay bis la moo xam ay ñam la nee na di leen digal ñiy bokkaale suñu borom tabaaraka wa ci loo xam ne amuñu ca wenn lay wuñ ko mën a layal dafa bokk ci xéewali suñu borom tabaaraka wa yi gën a màgg yu mu xéewal jaam ñi mooy lépp loo xam ne aajo woon nañ koo ba mënuñu ko ñàkk lu aajo ji gën a tar rek mu gën a yomb lépp loo xam ne aajo gañ ko aajo moo gën a tar loola mooy gën a yomb ba soo demee ba ci yi ñu jëfandikoo sax dangay gis ne ni ñu aajo woon noyyi moo gën a tar sax ni ñu aajo woon naan noyyi moom fa toll yaa ngi koy aajo moo tax amul benn effort boo ci def foo dem da nga fay fekk ngelaw li ngay noyyi doo ko sax yóbbaale foo dem fekk ko ndax loolu mooy li gën a jëm nga xam ne mu mënta xaar boo ko ñàkkoon rek sa dund day daal di yem foofu la ca toppaat di ndox aajowoo naan kooku itam moo gën a tar li nga aajowoo lekk moo tax gis nga moom itam moo gën a yombat ndox moo gën a yomb ñàkk ñaam doog a ñëw ca biir ñam ya it lu ca gën a mënta ñàkk loola gën a yomb boo seetee xorom mënta ñàkk ci ñam yi moo gën a yomb kenn du ne ñam bi amul poobar wala amul kaani moo tax mënuñu ko lekk bu ko amul it mën nañ ko lekk gis nga yooyu lu ñu gën a seer xorom ndax yooyu dañoo mën a ñàkk loolu moo tax kon pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu tawhid nga xam ne moo gën a jëm ci loo xam ne doomu aadama da ko war a xam mooy aajoom ji gën a tar suñu borom tabaaraka wa taala da ko jàpp ndal jegeel ko ko lool moom la ibnu taymiya rahimahullah di wax ne awalu diin wa axiruhu wa zahiruhu wa batinuhu huwa tawxid nee na njëlbeenu diine fi mu tàmbalee ak fi mu yem la ca feeñ ak la ca nëbbu nee lépp mooy tawxiid wa ixlaasu diini kullihi lillah huwa taxqiqu laa ilaha illa allah nee lépp nga sellalal ko suñu boroom amu ci loo sedd sa bopp waxuma laa di ko sédd keneen ala lillahi addiinul xaalis yëg leen yàlla kat diine ji nga xam ne moom lay nangu ci jaan bi muy diine ju sell joo xam ne lépp moom lañ ko dox te nee na loolu moo nga dëggal kalimatu laa ilaha illa allah mu wax ne fa inna al muslimina wa in ishtarakoo fi l iqraari biha fa innahum mutafadiluuna fi tahqiqiha tafadulan la naqdiru an nabita mu de jullit ñi doonte ñoom ñépp ànd di wax kàddug laa ilaha illa allah waaye nee na rawante nañu ci dëggal laa ilaha illallah rawaate goo xam ne mënuñu ko takk ndax wax laa ilaha illallah ak dëggal ko dëgg dëgg dëgg loolu lu wute la nit ñi dañ caa rawaate lool suñu borom tabaraka wa jegeel gi mu jegeel tawxiid mu def ko ci saar woo xam ne saar wu gàtt ci ay baat la waaye saar wu yaatu lool la ci ay maanaa néewaana ku ko mokkalul ci jullit ñi muy suratul ixlaas ci la suñu borom tabaaraka wa xamle pas-pasu tawxiid ba tax ñu tuddee saar bi ixlaas sellal dara kenn nekku ci lépp suñu borom tabaaraka wa taala moo ko moom diglewu ci sax terewu ci itam suñ borom tabaaraka wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ak képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg a xam sa borom bi nga war a jaamu mooy kan bul fa nekk di làmbatu bu la ko nit laajee itam xul huwallah ne ki ñuy seet daal ndax ñépp a koy làmb xeet woo dem lu nekk am na lu ñuy jaamu loolu fital la yàllaa ko bindaale nit ki faw ni muy wute lu muy lekk di ko wute lu muy naan loolu lay wute lu muy jaamu loolee muy jaamu nag di ko làmbatul boppam loolee su ko laajoon dañ koy wax ne huwa loolu ngay seet allah mooy yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ahadun kenn rek la rek moo tax xul walla ni ñu koy jàngee dañ ko war a déggee noonu ku ko déggee noonu dootoo tàbbi ci bokkaale ndax da xam ne feneen leneen nekku fa dara nekk lépp suñu borom a ko yor xul wallaahu ahad moom rekk amul kenn ku ko bokkal wala yusriku fi hukmihi ahada nee na moom acteem bi boolewu ci kenn toujours ñu ngi koy jàng wahdahu la sharika la loolu la ñuy jàng toujours wahdahu la sharika la amul sharik yu bari dañuy jàpp ne yàlla moo fi ne waaye nag daa am cëram yi lu mu ci jox ay nit ñu yore ko di ko mën a doxal na ko yàllay doxale déedéet ba tam dëkk cee teg ahad moom rekk loolu dañ koy war a xam ñi ci des ñépp ay jaam rek inna allasina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum nee na ñi ngeen ñu ngeen di wuti ci li ngeen waroon a wut ci yàlla ngeen koy wut ci ñeneen ñooñu seeni naw lay jaam lañu ibaadun amsaalukum in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abdan ci biir kullu ko kenn génnu ci ku mën a doon rek illa ati rahman abdan laqad ahsaahum wa addahum abda kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda kon ahad boobu koy déggee bul ko jëm naan yàlla boo xasee jàng xul wallaahu ahad da bàyyi yàlla yàlla yàlla rek yàlla kenn du ci boole nangam yàlla nangam yàlla diw wala yàlla déedéet yàlla kenn du ci boole laa yàlla yàlla kenn ko wax ndax boo ko waxee rek kon jàppatoo ahad ji kon am na comme ko bokkal allahu samad yàlla ba tey moom mooy asamad te mooy ki ñuy jublu ci mbooleem aajo yi ndax doom aadama biñ ko digalee jaamu yàlla itam nag te moom dafa ami aajo dañ koy xamal fu muy faje di ay aajo moo tax boo ne iyyaka yàlla yow rekk lañuy ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in yow lañuy ñuy dimbandikoo ndax nag doom aadama dafa tële xuliqal insaanu daifan lu nekk da cay soxla ndimbal ndimbal loole nag ñu xamal ko ne ba tey ci suñu boroom rekk la koy wut ndax mooy ki nga xam ne moo mën a faj aaju yépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci al aalamul ulwi mu ne ñi ne ci kaw muy malaayika yi ak ñi nekk ci al aalamu sufli ñi ne ci suuf muy nit yeeg jinne yi ñoom ñépp dañoo aajowoo suñu borom tabaaraka wa taala moom lañu war a ñaan moom lañu war a laaj seeni aajo seen xemmimteef yépp ci moom lañ ko war a jabale ndax mooy ku mag ki ci mbooleem ay meew mooy ki xam ku mag ci ab xam-xamam waaye mooy ku lewet ki ku bari yërmande ki ci mataay bu mat sëkk mooy ak yërmande ji nga xam ne itam ku mat la ci yërmandeem yërmandeem daj na lépp wa rahmati wasi'at kulla shay nee na sama yërmande ëmb na lépp ëmb na ñëpp meloom yépp noonu la ci mel daldi dagg nag lu koy boole kenn mu ne lem yelit jurut boo gisee mu jiital jurul doog wax ne juree su ko te buroon ci mbindee fi ñoom bala ngaa jur dañ lay jur ba noppi nga doog waaye gannaaw li ñu koy faral di jiiñ mooy ak jur yàlla moo jur diw wa qaalat il yahudu usayru ibnullah wa qaalat il nasara kon ñi ngi jël ay nit di leen wax ne yàllaa leen jur moo tax mu njëkk dàq jur boobu de mu jur kenn lam yalit walam kon jógewul ci kenn kenn jógewul ci moom ndax doomu aadama ñaar yooyu ko séq fu mu soqi koo muy ay way juróom ak ñu soqi koo ci moom muy ay doomam li ñu tuddee al aslu wal farqu yàlla na ñaar yooyu amu ci dara kon kenn mënta bokk ak moom kenn mënta bokk ak moom ndax mënoo ne fan la ko juree diw dañoo bokk ci wetu baay wala wetu ndey foofu ngeen bokkee wala nga ne maa ngi bokkee moom ci soqi koo ci moom muy sama maam wala muy sama baay walam yakun la woo ko for ahad kon dàq na kuy bokk moom dara waaye man ngaa bañ a bokk ak dara ba noppi nekk natt boo am tolloo ngeen tolloo daraja donte bokk leen mu ne nag moom kenn du nawleen laysa kamislihi shay ñëpp ay jaam la kenn du nawleen ci ay turam ay turam moom rek moo ko tudd ndax tur la buñ koy wax day wuyu la tur way tekki waaye turu yàlla yi koo ko tuddee itam turu kese wa rek moo koy nekk moo tax mu ne wa jaalu lillahi suraka xul sàmmoohum mu ne am na ñuy wutal yàlla ñu koy bokkaaleel nee leen nañ wutal ay tur ñoo ñu ñuy bokkaaleel yàlla nañ wax nañu mel xul sàmmoohum wax leen lu ñu tudd ko fi bokk yàlla waxal nee na al rahim la wala al asis la wala al jabbaar la wutal ko ay tur am tu nag bi doon ko bi maa laa yàlla wala boog ndax ñoom dañuy xamal yàlla lu mu xamut yàlla moom ne amul kenn ku muy bokkaaleel nguur gi ñoom ñu ko am na ñooy bokkaaleel nguur gi xanaa yaa ko yëgul waaye am na ñoo ko bokkal mu ne kon ñoom dañuy yëgal yàlla lu mu yëgut kon am tunabbi'uunahu bimaa laa ya'lam fil ard kon kaw suuf si daa am na fi xew ñu si bokk yàlla nguur gi te yàlla yëgu ko ba ba mu ne am bi zaahir min al xawl wala boog ndax wax kese la rek zaahir min comme gone yi wax ab gattax fasu gattax noonu di dawal naan aw oh, fas lay dawal di wax ali di dawal te bu yegsee ci yow doo gisu fas ab gattax ngay gis kon ku ñu fi dend rek yàlla itam ak tuñ mu ñu la mën a jox bu ñu yegsi woon ci li yàlla war a def buutu gattax boobee gone nga war sax gone tal ci xaw laa gën a nuru lañ koy doyee moo tax mu ne ban suy na lil lazina kafaru makruhum wa suddu anis sabil nee na daal ñi weddi yàlla ba di ko bokkaale seytaane moo leen rafetalal la ñu nekk fa zayyana lahum seytaanu amalahum waaye bu dul loola danañ xam ne lii waru la nekk kon xul wallaahu ahad nga xam ne ñépp a ko bokkal wala boobu li ëpp bokkal nañ ko ñu koy jàngal ba bare bare bari di ko ñaane waaye au lieu ñu koy ñaane na fekk ñu dund ko ba noppi na fekk ñu dund ko jàpp na yàlla kenn rek la te nga koy doxale noonu looy wut ci yàlla doo ko wuti ci keneen as mooy kii mën a faj aajo yépp boo ñàkkee boo feebaree boo jàqee mboolem aajo doo am bul dem di seeti kenn wala lenn diis ko suñu borom tabaaraka wa taala ud'uuni astajib lakum ñaar leen moom amuñu leen xam nga suñu borom tabaaraka wa taala teraanga ji mu defal doomu aadama leen ne wala xam karam naa bani aadama ci nekk gim nekk buuram may ko mu am ci moom accès rek yàlla bu ko defoon ni nit ñi yéen dootu leen ci man boole naa leen malaayika yi mënu leen yegg si ci man waaw boole naa leen malaayika yi ñoom laa leen booleel ñooy seeni kilifa waaye déedéet ñoom malaaka yi noo bokk kilifa loolu sax bu rëy rëy defal la boppam di sa buur di la wax ne boo ko ñaanee mu wuyu la bu ko jaarale fenn loolu dara ju ko gën a kawe amul nga xam ne malaaka yi ñëpp loolu lañ am yonent yi loolu lañ yow yàlla may la lool nga di ko fa bàyyiwaat di jàpp leneen wala di yaakaar leneen loo xam ne sa moromu jaam rekk la la ngay wut na ko ko woo noonu la ko aajowoo loolu lu suufee suufe la aaya alquran yi dikk di leeral maanaa suratul ixlaas bari na lool waaye dañ ci jël ñetti aaya mu yoo xam ne boo ko déggee rek da am tawxiid aaya bi di aaya ñeent suñu borom dafa ne xul yaa ahlal kitaab neenu ahlul kitaab ndax booba ñoom ñooy ñi jàng ñooy ñi mën a werante ci wàllu pas-pas ne leen taalaw na ñépp ñëw ila kalima wuy si genn kàddu goo xam ne sawaa im baynanaa wa baynakum kàddu ga nun ñépp noo ci yam kàddu ga amu fa buur ak baadoola amu fa njaatige ak surga ñépp fa tolloo kàddu ga moy la allah naabuda illa allah bu ñu jaamu ku dul yàlla te it wala nushrika bihi shay'a te buñ ko bokkaale ak kenn gis nga jaamu yàlla nga buñ ci jàkka ji ñëpp a yem lu dul waay doon doon kilifa bu nit ñi rukkoo da rukkoo bu ñu sujootee da ngay sujoot bu ñu taxawee da ngay taxaw waaw amul ne kilifa la kon moom dañ koy jagleel moom mooy njëkk a rukkoo wala mooy njëkk a wala mu nekk personne ba lépp moom ñëpp a koy nuroole wala yattaqisa baaduna baadan arbaban min dunillah mu firi laa musrika ji bu ñu bokkaale ak yàlla dara mu ne bu ñu jàppante ci suñu biir ñenn ñi jàpp ne ñooy njaatige ña ca des ñooy boroom ña ca des ñoom ñoo dox seen digganteeg yàlla loolu la wax ne bu mu ca am na ñépp nekk jaam yàlla fa in tawallaw fa qulu shhadu bi anna muslimun mu ne soo wootee ci kàddu gi nag ñu war a wéetal suñu borom tabaraka wa taala ci jaamu giñ koy jaamu jagleel ko cofeel giñ koy sopp ragal giñ koy ragal yaakaar giñ koy yaakaar duñ ko ci booleeg ab yonent duñ ko ci booleeg malaaka duñ ko ci booleeg wali duñ ko ci booleeg aw xiram duñ ko ci booleeg mala duñ ko ci booleeg dara loola mooy kàddu googu nga xam ne ci la suñu borom tabaraka wa taala wax ne na ci ñépp wuy si kàddu googu mooy kàddu gi nga xam ne moom la ibrahim alayhi salaam saxaloon moom la borom wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibihi la allahum yarjiun te ko defoon kàddu goo xam ne dafa des ci biir njabootam ku ciy bëgg a génn àdduna da ngay dajale sa njaboot ne leen maa ta'buduuna min ba'di bu ma fi jógee lu ngeen di jaamu ñu ne ko buur bi nga doon jaamu moom la jaamu te duñ ko bokkaale ak dara kon boo xasee xam ne lislaam amul yaraasi bu ci nekk boo xam ne ñii dañoo féete kaw ñi ci des amu ci ñëpp jaami yàlla lañ ndax dëgg la rawaate na ci seen biir ci ni ñuy toppee yàlla waaye rawaate googu dañ koo mënagul a xam fa kanam suñu borom lañ koy xame fala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa bu leen di sellal seen bopp di baaxal seen bopp gannaaw mënoo baaxal sa bopp rek te li nga xam ci sa bopp xamoo ko ci keneen kon nooy baaxale keneen gannaaw mënoo doog ci sa bopp ne man nii ku baax la yow sa bopp xam nga ko xam nga sa bopp li nga xam ci sa bopp xamoo ko ci kenn loo mënul ci sa bopp nag kon doo ko mën ci keneen wala borom li mu njëkkee rek da ngay seen bopp seen bopp ci la dara kon keneen ñuy wax ndax seen bopp 24 sur 24 yaa ngi gis sa bopp loo nekk xam ko ñeneen ñi nag léeg-léeg mu am wax doo xam lu ci lu nekk da nga toog waxtu yoo xam ne ñooñu ngay baaxal xamoo ci luñ nekk xamoo ci luñ nekk bu nag nga bëgg a dogu nañu baax rek. mbaax bu sëkk loolu la borom bi terale bu leen ko def huwa aalamu bi man ittaqa yàlla rek mooy ki xam ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg te ragal yàlla ci la ñuy matale mbaax loolu kon suñu ko déggee ci aaya moom jàpp itam ci biir diina ji itam nekku ci ñenn ñi di topp ñi ci des loolu dañ ko war a xam doomu aadama li muy jariñ moroom ma ci diine mooy xamal ko ndax doomu aadama yi ki ci jiitu mooy yonent yi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te borom bi wax na li nu seq ak moom la muy defal nit ñi yatloo alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalal loolu yonent bi loolu rek la leen defal waaye ñëw na mooy faj seeni soxla mooy faj seeni aajo moo leen di wéral bu ngeen feebaree déedéet loolu yoonam nekku ci moom yatloo alayhim ayaati da leen di jàngal alquran wa yusakkihim di leen yar ci ngeen dund alquran wa yuallimuhumul kitaaba di leen leeral li alquran wax ba ngeen mën a dégg maanaam wal xikma di leen leeral sunnaam sii firi alquran loolu mooy mission yonente bi sallallahu laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi gis nga loolu mooy mission bi kon keneen comme mën doon nit lim la mën a jëriñ ci diine mooy jàngal la jàngal la xamal la diine bi loolu dong nga koy def leneen doyewoo ko ko boo jàppee ne am na leneen loo lum la mën a defal ci diine lu bu weesu jàngal la loola bu boobaa yaa ngi ci ak tànk gis nga ña ko jàppoon yawma fi nnaar yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula nee na bis bu ñu la di naq ci biir sawara di wëlbëti mu ña toppoon keneen ku yàlla ñun ak a neexoon nu toppoon yàlla toppoon yonent bi yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula mais ñu leen ku ngeen toppoon ñu ne inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluuna sabila ñun de sunu sang ya ñaan jàppe woon ay sang jàpp ne ñoo gën ci julli sax dañoo jàpp ne ñoo ci gën fexe nañ ba euh, wan nit ñi ne ñoom ñoo leen gën a juddu rëy rëyu ci seen kanam ba nit ñi jàpp ne ñoom mëtatuñu nit bu ñu nekkee seen wet mëtatuñu nit ñoo wax amatuñuy xalaat lu ñu waxit ñoom waruñoo seet ndax yar na maana wala yarul maana seeni wax moom jël jafe rek mooy ku war a ànd mu ne ñu mel noonu lañ toppoon nag fa adalluuna sabila ñooñu ñooñu sax moo tax ñu rabbana aatihim difayni min al azab yàlla kon gannaaw ñoonu ñoonu sànq foo bu mbugal benn na nga leen fa mbugal ñaar wal anhum laanan kabira te na nga leen rëbb rëbb mu mag a mag xoolal ki nga xam ne moom moom la yaakaar nee na lu mas a wax mu ne waaw tey mu naan buñ ko dóoree benn yàq nañ dóor kooka ñaari yàq rabbana atihim di'fayni min al-'adab wal anhum la'nan kabira ñaareelu aaya bi mooy fi borom bi xamlee ne ak lu mu mën a may nit ndax ñu bari itam dañuy jàpp kii daal moom dafa yor ci ciiri yàlla yi ndax xam-xam bi mu am ak cir bi ko suñu borom tabaaraka wa taala jox kon kooku daal moom duutu jaamub yàlla kese comme nun rek waaye am na ci yàlla loo xam ne nun amuñu ko kon war na nu mën ci moom borom bi ne maa kaana li bashar an yu'tiyahu llaahu alkitaaba wal xukma mi ngi limité doomu aadama fi mu mën a yem nee amul benn mbindeef suñu borom jox ko téere loolu fi la gën a fi la daraja yem bi ab yonent jox ko téere wal xukuma jox ko ak dégg bu mu dégg téere boobu wan nubuwa jox ko yonent kooku moo ne ci kullu wilaaya ak nubuwa moo ko féete kaw yooyu nga xam ne doomu aadama fi la mën a yam ci ay daraja nee na ku mu ko mën a jox taxul mu sañ suma yaquuna linnaasi koonoo ibaadan lii min duunillah kon mbaaxul nit yi wala darajaam wala xam-xamam bu mu la ndax tax nga bëgg a jàppale yow kooku nga war a topp teewul jàppale ba tey jaamu bi walakin koonu rabbaaniyiin kooku yàlla jox cër yooyu li mu sañ diggantee ak nit ñi mu teg leen ci yoon woo xam ne dañuy nekk jaami yàlla dëgg dëgg dëgg koonu rabbaaniyiin bu ñu leen askane kenn ku dul yàlla su ko bëggee na fan lay jaar ba nit ñi nekk jaami yàlla bi maa kuntum tuallimuuna alkitaab gis nga li ma la waxoon ne doomu aadama lim la mën a jariñ mooy xamal la ñëwaat na boo bëggee def nit ñi rabbaaniyiin tuallimuuna alkitaab wa bimaa kuntum tadrusuun li nga leen di jàngal ci téere bi ak li nga leen di jàngal ci lii leeral téere bi foofu nga mën a jaare bañ nekk jaam yàlla waaye bu ñu la déggalee te jaaralee foofu ci yow la ñuy yem yow la ñu daal di teg fa ñu tegoon yàlla maanaam nit ñi dañoo ñëw ci yow di seet yàlla da leen wax da leen di wan yàlla waaye soo ko wëndiwul nag yow dañuy yàpp na yow mi fi toog buudul yàlla yi yaa fi toogal yàlla kon kon yaa ko fi toogal lu ñu waroon a defal yàlla dañ la ko defal lu ñu waroon a ñaan yàlla dañ la ko ñaan ndax yow lañ gis rawatin nag nga di woo ci sa bopp di woote ay cër yoo xam ne am nga ko te dara amu ci aw lay kon aaya boobu itam bu ñu ko xamee da ngay xam li nga seq ak sa morom yi doomu aadama même bu la ko bëggoon a def dana koonu ibadan lii nekk leen samay jaam ndax jaam mooy koo xam ne loo ko digal mu def loo ko tere mu baax te ndigal la du ko jottali ci yow lay jóge sa ndigal bopp lay topp kon sartu ci ne loo ko digal mën a ndax yàlla mu ko digal booba ko digal loo ko danga ko jottali rek waaye su fekkee ndigal li nag doo laaj lii ñu la wax fu mu jógee luy dalil bi lu may daga naan ci moom la jóge rek kon moom ngay topp Ali ibnu ca nasaraan ya bi mu ci lislaam rek boroom tabaaraka bi mu ak ittaxasu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah ne ñoom yahud ya day dañoo jàppe seen fóore ya nasaraan ya jàppe seen labbe ya ay yàlla mu ne ah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah ñun jàppe ñu leen woon ay yàlla de yonent bi sallallahu ne ko moo ndax daaw ñu leen digal loo xam ne ñoom ci seen bànneexu bopp la leen ko digale ngeen def mu ne ah kay bu lu mu digal moom dañuy def ndax duñ leen tere loo xam ne ci seen bànneex lañ leen ko tere ngeen bàyyi mu ne akay mu ne ko tilka ibadatukum lahum loola mooy jaamu ko ngeen leen doon jaam kon ndigal loolu boo ko jox laa war a jottali ndigal waaye waru laa digal waru la waru laa digal ndax ndigal la kiy digle yéen la bokk digal dala koy jottali ci wax jottali la ko ci jëfe ko ci sa kanam comme ni nga xam bi du taxaw fee naan nit ñi kàbbar ñu kàbbar mu ne rukkoo leen ñu rukkoo toog leen taay taay ba sën ba déedéet dañu ñëw ànd koog ñoom jiite leen da leen di jiite dañu ñëw kàbbar ci seen kanam lu mu def ñu def ko waaye bu taxoon fee comme ni soldaar yi def nga xam ne seex ba day tax ba day soufflé lu mu soufflé ñu def loola moom du ko def moom waaw bu dee yëkkatil seen loxo ñu yëkkati moom du yëkkati sëgg leen ñu sëgg sujjóot leen ñu sujjóot jóg leen siggi leen loola su fekkoonte ne sañ-sañu nit da ko am ci morom ma kon ki jiite noonu lay def waaye lislaam lu la ci nit di digal te du ko def bu ko def wala boo koy def ndigalam bu mu nga def lislaam lu la ci nit di digal rek jottali la digalu la daf lay jottali daf lay jottali wa maa ala rasuli illa al balaax bi dara waru ko lu may balaax rek balaax wa maa ala rasul illa al balaax yaa ayyuha balligh maa unsila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa ma ballaghta risalata balligh tabligh rek jottali rek a fi nekk waaye dara luy jógee ci yow sa bopp daa am fu bu jógee egg ci yow jàng kii jàng lu mu jàngut jottali ko li nga jàng waaye bu ko wax saxee bopp boo ko waxee ne lii yàllaa ko wax lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax yow génn ci taxaw fee loolu la suñu borom xamle ne. nit ki ak daraja bu mu mën a am bu tax nga jàpp ne lu mu def rek noonu la buy dégg ñu wut ah gannaaw diwoo ko wax rek moom noonu kooku moom lu mu la wax am na fu teg fu mu ko teg yooyu da nga ko wóoloo ba même bu tuddloo aaya tuddloo hadis nga ne rek naa ko moom xam naa ne moom fu wér la ko teg moom li dégg wax dañ ko ku diw daal bu la ko waxee moom fu wér la ko teg fu wér foofu anam borom bi def na qul haatu